njiit moom ku boot bukki xaj boobu la d'abord, c'est c' est le responsable départemental donc ay xale ñoo njëkk a def sortie ñu leen di woowee convergence des jeunes républicains donc Ablaye Diouf jiite leen Ablaye Diouf ñooñu bu ñu defee sortie ni Omarioum tudd ko loolu man ci li ñuy wax ñoom ils sont bien précisés wax nañ nee nañ ñoom li Omarioum nekk njiit moo tax ñoom ñu koy tudd waaye bu nekkuloon njiit da koy dañ koy maasale comme ñëpp

ay jeunesse nekk fii dekk mbuur ay jeunesse nekk fii nekk département de Mbour ñu sagal ko kenn mësu ko ci waxal lenn sag boobu ñu ko sagaloon Omar yu man damay nekk ak moom fii ci département de Mbour GPS GPS bien mais mu xam naa ne amul benn commune amul benn kër amul ben kilifa amul ben responsable bu fi nek bo xamni lim man ci ak lu mu mënul na la ci département bi 16 collectivités locales man naa ko lim collectivité locale par collectivité locale amul kum fo wutalul liguey amul famille fuñ taxaw mu taxaw fa jeunes fuñ taxaw mu taxaw fa mag ñi fu taxaw mu taxaw fa lu xew mu ngi ci mënta fa nek fépp nak mais mu ngi def ay effort maximum fi ci mbou nga xamni ne lañ taxaw tay di wax le directeur de l'administration générale et de l'équipement file de la Le ministère de la Il am na conseil technique de de ministère am la donc kooku nag bu des ni deful dara dañ que ko waaw li nga def des jeunesse bu fekkente ne jeunesse parti socialiste lañ nañ dem président Macky Sall dafa nommer ay ministres yu bokk parti socialiste nañ leen cité ni leen yéen ñi nga xam président bi muy sédd dafa jël sédd leen ñun ñii bu campagne dañu campagne leen parce que 2014 nous la fait. fekk. parti socialiste 2014 àndul woon ak APR ñoom dañoo bëggoon a continuer contrôler département bi. avons imposé boppam wane leadership bam ba tey mu contrôler département bi kon ñoom jeunesse boobu bu ñu dee wax nañu xool bu baax lan la ñuy wax xool bu baax ki ñuy waxal que fan la jaar xool li tax mo egsi fii tey xam vraiment lim mu def def nako dembu démb rek ñu sorti kenn ki mu ngi bok parti socialiste keneen ki ci mu ngi bok ICS ICS ba dembu Ablaye Balde ba démb la ñeu jappale président Macky Sall dañ ko gagné ka dañ ko gagné Casamance kenen ki ci dess parti socialiste la bok fi amna député parti socialiste na dem ci mom wax ko niko yaw ya ñu fi nekkal yaa suñu law demal ci président Macky Sall niko ñun wa parti socialiste amuñu dara ministère de l'éducation nationale lañ leen jox lu yag jox leen ministère des élevages lu yag jox leen ministère de de la paix jox leen ministère de l'eau président li manon ci fofu ci aliyem ci honnêteté ci sérieux ci li wara def mu ngi ci waaye bu ñu rek topp diw moy responsable départemental diw lan motax mom biñu tuddu ñuy tudd Omar Youm ñoom tudduñu sen responsable am nañ ay responsable nañ ko tuddu wax ni sen responsable yoyu aussi defuñu fi dara fi di département de responsable yi man défendre len mais ñu ci bari am na xam ñu ngi def liñu wara def amna ci ño xam nak ci responsable yi président nommé len par décret defuñu fi dara loolu moom ñëpp xam nañ ko mais encore une fois le ministre des infrastructures li man ci département bi Oumar Youm ci commune par commune mën naa la ko limal parce que loolu day yàggal suñu waxtaan vraiment encore une fois mu ngi koy def même parce que nag dinañ dem ci moom toogaat ak moom en tant que ay collaborateurs wax ko ni ko yokkal li nga doon def baax mais yokkal li nga war def mais vraiment nañ sànni que ni ñoom lañ attaqué seen responsable yi parce que bokkuñu APR Benno Bokk Yaakaar lañ wax ku nekk yaa ngi dem ak sa cig encore une fois